ci tàmbaleeg euh, leeral yi Antoine Diome doon indi léegi ci couvre-feu bi ndax dañu ne woon jeex na guddik ji mu munu cee bokk mu munu ci lay bokk ndax euh, ñi nga xam ne dañoo wax ni bokk ci nag dañoo wàññi noo xamante ne nii baaxul fekk moom ci boppam arrêté bi mu signé woon du o di 17 moo ci nekkoon mu ni loi bu bees bi nag subaak jàmm lañu koy promulgué waxtaanu mu seqoon ak naataangooy télévision nationale Pape Bess Diba amatul xel ñaar ci kàddu yi ministre de état d'urgence bi ci altine ci minuit lay jeex Antoine Félix Diome di expliquer ne bay njiitu réew mi di instaurer état d'urgence ànd ak couvre-feu ñu ngi ko door ci a ñaari fan ci weeru janvier. le 6 janvier dernier son excellence monsieur le président de la république. juróom-benn fan ci weeru janvier bi la ñu proclamé date d'urgence bi juróom-benn fan ci weeru janvier euh, ca minuit la am kon juróom-ñaari fan la tàmbale moo tax tey wax a jeex minuit. ainsi que l'état d'urgence devrait prendre fin aujourd'hui. ministre de l'intérieur di xamle promulgation loi bi nga xam ne député yi daal di nañ ko soppi bu yàggul mu di loi dix neuf cent soixante neuf bi ci talaata gi la nar a am. comme toute loi elle a un processus avant son entrée en vigueur. une neuf bu ñu daal euh, euh, euh, di soppi. loolu moo joxe wàññeeteelu régime bi nga xam ne moom mooy waxtaan ci ay catastrophe naturelle wala sanitaire. te sax processus boobu dafa am yoon. laata muy tàmbale. dañ koy voté ñu envoyé ko njiitu réew mi mu def ci li war. taa nag dafa war a tënku ci lii di yoon. laata nag ñuy xaar nag jox ñu ay tegtal ko fii ak de prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets pendant cette période de huit jours mel ni na lu lëndëmaloon xelu sénégalais yi doon dund ci état d'urgence bekk couvre-feu bi diggante Dakar ak Thiès ci ministre de l'intérieur boobu la jógee ci arrêté bi nga xam ne ni moom moo gunge état d'urgence bi ginaaw biñ ko instauré acte jël yépp dafa ne ci juróom benn fan di six ba dix-sept janvier la war a jeex ci ñaari région yi nga xam ni ci la ñuy appliquer couvre-feu